تقرى إلى الله وحده yanaalul ngir ngeen di jot suñu vidéo nag fooleen leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne Oh bu fekkee ko gërëm ci taaram ak ci yërmaaneem ak ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ne mu maa gën a yonent bi bis bi nga xam ne ci la juddoo te bu fekkoon ñu fay contre ñu koy def ñoom ñu ñëw continuer ko ko def. mu ne la fas yéene ñu ko kon nag illaa yow mi diini. mu ne la boo xam ne xew na yéen nit ki dañuy màggal ko jox ko cëram ci kiñ xam ñoom ak ni koy màggalee liñ gën liñ gën a bëgg dikkee woon ñu nekk ci dënnu sunna mu ne loolu mooy màggal bu dëgg dañuy màggal ko mu ne waaye ñu koy màggalee ñu dikkee woon dafa màggal am ci maqaama bu ko yàlla jox loolu maqaama bu boolatu ak maqaama bu saamatu mu ne maqaama mu ne li gën nag mooy liñ diggee woon ñu teel ñu jàpp ñu koy def li nga xam ne loolu la diggee woon ñu teel ñu ko ko def lim teel lim leen doon nekk ci la moo tere ñu ko. mu ne la moo digle ñu nga ko guddi ak bëccëg la moo tere ñu bàyyi lépp ci waxtu wu ne muy ko mooy koo xam ne yàlla doon na jëkk bindi ci nijaabul mu toon moom la jëkk bindi bi ko bindee ñu tuddee ko Abdullahi mu nekk Abdullahi wala yàlla na ko yaa abdi ab yaa abdi yow sama jaam bi mu ne ko la may yàlla dama yaa habibi yaa nangoo nekk sama jaam comme yàlla yaay sama jaam yaay sama soppe moo tax ñaari tur yooyu muy Abdoulaye dañu ko tudd di wuyoo nag kii la tuddee Habibulaye ñu koy wax Abdoulaye di Habibulaye waaye du ko wax Abdoulaye lii ko. Habibulaay ñi Abdulaay Abdulaay dañuy wax ñi Habibulaay na nekk Abdulaay mu nekk Abdulaay min haysu maa huwa wóor du ko yàlla sàkkee fekk ci moom la yàlla fekk feeñal li ko njëkk a feeñal mu ko Abdulaay bi waxee moom mu nangu mu ne ko bii yàlla xam ne ki la na jaam bi mu ne ko yaa xabib bi mu ne ñaari maqaama yooyu moom la njëkk a dugg mu ne xam nga àdduna njëkk a dugg soo ko tudd xabib mu ne ñaari yooyu moo gën a xaasi ay turam mu ne wax nekkoon ak ñoom seen kilifa dafa màggal mu ne yooyu ñu fekkoon di ko màggal ci guddi gii guddi gii ci lu juddoo guddi entrée ba sënt entrée ci lu juddoo loolu yàlla dogal yàlla na yàlla dimbale fan yii mu ne yàlla dimbale ñu fan yii day taw lool waaye yàlla na ko bàyyi taw yàlla na commencé à taw waaye mu ne tey taw taxul dara muy ne sa wet yëpp na ci taw mu ne mu ngi gërëm xolam sedd na lépp loo xam ne bu jafe woon la yàlla yombal na ko ci barke Rasulullah mu dafa gis mbooloo mi gis nga solaa yi col ak toogaay yi toog te defewuñ ko dara wurut màggal ko jox ko cëram mu ne loolu rek doy na yaakaar mu ne lépp ci mbooloo mi di fi daanaka lu ci ëpp ay gune la bu ne ko compté ñaar fukki nit ñaar ñooñu ay mag ay xale lañ te yàlla rek ak Rasulullah ak moo nekk ci sa xol yi ak bëgg yëpp sax suy yàlla joxoon ndaw radiyallahu taala anhu mu ne muy wëri yaay boo xam ne du man loo ci mu ne leen dafa yàlla yu laay maqaama yu amee manta manta romb wilaaye fu wilaaye toll maqaama toll la lu wali yu doo alaaja war na loo ko lu wali yu xam xam na ko bu dee jaabe ko yàlla jox wilaaye boobu am na mu ne yàlla na yàlla dimbale ñu ci xormaam ak darajaam mu ne tax bu lii yëpp yéen lay nekk mag yéen lay jur yéen lay xam yéen yaa ko sax mu ne ñi fi ne nekk ay mag seen fan اللهم صل على سيدنا محمد وسلم mu ne mu ne daa xam ne jërëjëf mu ne jërëjëf de taxawaay bi baax na rafet na jekk na mu ne nangu bi ni ngi nangu loolu ko nangu bëriwuñ de jërëjëf mu ne xam nga sa bopp mu ne kii moom a mag xam nga sa bopp kii la yàlla jox na ko dara na ko dañu la ko ne ah fi nga war a taxaw taxaw nga nga war a def def nga ko mu ne li gën a am solo mooy néegam yàlla bii mu ne bu fekkoon ne ñëw mu ne moom mu ne li doon néegam makan bom makan moo makan sël la moo xam sët mak maam la yépp xam ne mag mag ku la mag wala mag ku la yëpp xam-xam moo yëpp xam yaa ngi koy boo ci dugg wala boo ci duggee amoo benn jikko bu ko daloon jikko jullit daanaka sa dem ci jàkk amul njëriñ néegam yàlla la rek bu néegam kenn bàyyi kenn moomu ko nijaay kenn na moomu yàlla kese kese moo ko moom moo ko mu ne ku ciy dugg ku ciy dugg nag bàyyi nee na mu ne yaa dëkkale sa bopp ci dëkk bi wala mu xamul foo mu ne nee na ku nekk mu ne li nga moom te xamul foo julli mu ne waaye boo fekkee nga dem bu julli sa lislaam loolu lislaam xam ko mu ne dem foog ne mu ne sa yaabi mu ne lu tàmbalee nag mu wax ak yéen ci bidaayatu Rasulullah commencement am fi mu génnee ci hijaabu mu ci jaarul ñooñ buñ ko waxee mooy li nga xam ne ci aalamu larwaa ba maa xew yàlla rekk kenn du nanuf bu malaayika du wuli yàlla kese kese moo fa woon ndam nekk feeñal ci jaarul bu toll mooy loolu sëy sallallahu alayhi wa sallam kon nag muhammadu rasulullahi bi mu feeñee ci jaamul bu toog fu mujj ba ba mu dégg génn ca mu ne mooy ne ku ñu lay wax ci wasalaamu aleykum wa rahmatullahi ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ mën a xam mbooleem loo xam ne إن الله وحده ينال المقام الله رجاء